yal na yàlla setal lépp. Samb 2017 bi ay feem yu bees la àndal. su nga yàlla sax. léppam set na. dëgg la da nga naan na nu yàlla may xolu setal. xolu setal. alaaji. Mhm. Sénégal gii ñu ne. Mhm. ak lu wër. Mhm. yàlla na fi yàlla def jàmm. amiin alaaji Gàmbi. na fa yàlla def jàmm. amiin ci Gambien yeeg Sénégalais ya fa ne. ndax lu fa yëngu rek. tuuru mhm. ci sunum réew. dëgg la te sunuy dooma dëgg la képp ku fa ne daal. Mhm. xolum seytaane. Mhm. ak xelum seytaane tax laa jóg. yal na yàlla ndëndëmal sa xel. wala soppi sa xalaat ba jàmm tax la jóg. amiin ma lay félicité réew mii it. yàlla def ci jàmm ma lay waaw. parce que tey bu ñu suñu mbokk waa leeral. waaw xëyee tàgguwuñu nag. déedéet. def sa neex l'homme de l'année waaw ci qualité ci xarañam ci li nga liggéey bi muy def donc loolu defe naa ne suñu ndam la ñun waa Soleil Levant ndamu bépp artiste comédien la. mérite la ci yow. waa jaa ngi nii de waay. waaw <laughs> kay sama. waaw lii nga génn <laughs> mani bon ah. foofu nag dama leen di dagg tuuti. waaw. nga Aziz Niane. bu yoree pilim. Mhm. Cheikh Ndiaye di réaliser ak di nekk metteur en scène ku leen jege amuk taalibe amuk dal amuk yar teggin mun ñu mën laa dégg fu ne waaw ci loolu ndax bu soleil levant defee nii ba ay kàngaam di ci génn yéen ñaar ñii la parce que man xaw ma nu ñuy bind xaw ma nu ñuy réaliser. daa mën a dugal. xam nga tamit euh, loolu dama koy wax souvent. damay wax Sénégal. xamaguñu kii. non non parce que jamono yu ñuy bâche. di paas fukki dërëm ak juróomi dërëm. am na nag ñu may laaj comédie la mu wane woon. Hmm. wone gu ko ba léegi. mais dégg naa démb médaille bi toj na toj na télé bi. non toj na fële mais dama ni la. ñun yooyu dañ ciy jox gars yi nag dig ah, waaw dañ ciy jox gars yi. day ñëw. long métrage comédie. long métrage comédie. médaille bi bañ ko médaille bi bañ ko annulé. nan laa ñibbee. mais pourquoi pas sax wiri wiri version comédie. c'est possible ah. Ah. ki ma andi tey. Eh, eh, eh, tukki woon maa ngi a ñëw nii da jubal si direct. ah ba tey lan lan lii nag war naa changé. di dóor. kon nan laa ko war a wax nga nekk war naa andi créé a changé thème dimbale leen ma bopp nan laa ah, introduire. waaye nag mi nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyee ci jig la kon ki ma andi tey. Ah, waaw gan bu rëy ba 2017 loolu laay def jig na ma. sponsor yi nag. dinañ ñëw ñoom naa leen jëli. suukar. dina ñëw. indi ma dawlin dina ñëw. ndax ah. waaw dañu dañu lakk yàpp ne le. 2017 New Look laay indi. ca Elba. waaw waaw Sumbulu il faut mu ñëwaat di lakk bi ne le. na voilà kon gan gi ma gan bu rëy. noo koy def Bela Ndiaye mooy kan. ban draabe sumbulu naa ko ah. indiwaat fii. Ah, ah, kii ba sumbulu su ma ko baabee day jóge fee ñëw fii de. Mm. leer laa la yow doo jóge fii dem fee. mukk yàlla tere xalaatuma ko. Mm. fii. Mm. fii daa neex fii la fi am amul fenn. ok maa la ko wax. côté demal. <laughs> ki maa tey. waaw. gan gu rëy. waaw. gan gi nga xam ne lu mu doon da koo doon. li mu doon da koo doon. da koo doon wala li mu doon da koo doon. lu mu doon da koo doon lu mu doon da koo doon. waaw waaw waaw da koo doon lu doon da oh, oh, doon oh, waaw waaw la ci war a doon waaw foo ñëw neex na ça dépend ni ko sa làmmiñ di muy ku baax di limee muy ku yaru baax nga wax ak yaru muy ku man li muy def <laughs> muy ki nga xam ni waaw daa tarbiyu tarbiyu ci musique sénégalaise ba réussir tey tarbiyu waaw magam la tarbiyu magam coon sekk kooku mooy kan kii waxuma Assane Ndiaye de beneen booy bi toj pentola nu mu tudd. waaw kay. Euh, kii ma penda. du ma keneen kii beneen booy bu toj pentola bi te gàtt nii rek. waaw te ni muy Ousmane. ah Ousmane Seck eh, sama xarit la kooku. jaajëf waay. Eh. waaw boo fa duggee rek dugg nga fa nga war a duggee. Samba Binta Mam Ndiaye tey dégg waaw waaw ko du ñoome galoore kure baasi Lat Joor a nga caar Lat Joor Jóob kulu Joor Jóob kuli joor nga doom calaw ma samba yaasin gis jam koddu faal ak bargee jog jogo may calaw ma samba yaasin gis jam moo la joore nga caar ndeysaan ku lu nga ndoom ah. colo ma samba yaasin gis jàmmoo kodu samba ak nday mberge teg jogob maay saaxarum kajoor nuyu naa kii mun la kañ fi toll nii ak a dégg yaa nga kajoor sama xarit baa ngi nii ñaani bañ na sama xarit bi na mot naa la maa la raw sekk eh, eh, maa la raw sama xarit la lom de la de lom de la de lii jomb la am na yeneen eh, ko légende lay doon légende. Aziz a ngi nii. oh Cheikh Ndiaye a ngi nii ah. oui eh. le le le le le. oh le le le le. Django salaamaaleykum. na nga kenn nuyoogul nii ci kër gi. déedéet ah 2017. waaw waaw doo bes na tàkk. waaw. Ousmane. ma kontaan lool. ci la paix. may jaar fa ma doon jaar démb ak barki démb. Hmm. mooy ñii dañu ne ma Cheikh ma ne leen naam ñu ne ma del andi gan. Ousmane yow gan boo mën a amee fii gan nga du laa mën a ndax marqué nga sa faa nag ci réew mi fii nag ci wàll wi nga féetee nag. dëgg la mu ni maa nga doon nga doon nga ko. Hmm. kon nag man nga sagal. xaw ma ne woon moom ba ma la woowee nga bàyyi lépp li nga jàppoon ñëw wuy si ngonal man nga sagal sekk. waaye yéen ku ngeen woo dina leen wuyu. njiinoo njiin faramaareen. walaay walaay walaay demba. lambaay njiinoo njiin. faramaareen Cheikh dalal ak jàmm. <laughs> en tout cas en tout neex na ma. ndax kii di sa xarit moom mi. kii kii. moom ak sidaat. waaw sidaat tuur ak fël. waaw ah. ay xarit la ñu. dëgg yàlla. vraiment. nuyool ñu bàyyi may nuyoo nag. nga baal ma ànd sama xarit ba. koy kan la Aline Daaro Daaro ma nga ca kër ga. mi ngi lay xool nag. ana Aline Diop. Aline Diop fu ñu wax mu wax yaa ngi dégg Sanex man ko Sanex maa bàyyi mënu ma noonu bàyyi wala. <laughs> ñëwal Daaro ma la dina ma neex. non du Daaro dina ma neex. Daaro Daaro sama sama soxna. Ah, Daaro. déedéet Daaro sama soxna waaw xale soxnaam. sama sama soxna lay wax. alaaji bul dugg ci ci ci kii alaaji. bàyyi la yëpp li nga def di la ba ba ba ba yëngal ko. <laughs> ah wax ñu ñombe ci kër gi. yaa ngi commencé ah. ah Ousmane maa ko jël man. Ousmane nuyool. Eh, ma dula nuyu Cheikh. waaw fay naa la. di kontaan ndax bi ma ñëwee eh, maa ngi xool naan ndax danaa la fi fekk. wallaay. ndax. saa neex mii wax naa ak moom téléphone. Mhm. félicité naa ko. alaaji mii. félicité naa ko. waaye yow gisuma la woon. damaa tukki woon maa ngi doog a ñëw nii yaa tax ma ñëw. bi ma ñëwee tamit bi ma la laajee dañ yow bi ma dañ ma ni léegi nag normalement avion bi atterrir na. te ca nga war a bokk. wallaay ñuy wàcc. tax bi ma la gisee damaa firiwaat. damaa dem fekk pilote ba toog ma ne ko eh pilote. Ah. mu ne rapido <laughs> ah, waaw aéroport da la jógee nii ñëw wax dëgg yàlla. Ah, yàlla yàlla laf cat. Ah. parce que dama leen di suivre. di leen bëggee ci seen film bi nga xam ni mi ngi yëngal àdduna. wiiri wiiri. di mhm. leen félicité bu baax a baax a baax. moo tax dégg kii dégg na lom da ne. waaye na leen leer li mu wax waaw mhm. li mu wax ma dégg ko mhm. ci réalisation yi nga xam ni yéen a ko bokk di ko réaliser am na yeneen lu des. ci kàttanu yàlla. te vous jeune. macha allah ay xale ngeen. mais vous êtes dynamique. yàlla yàlla lafal leen cat. maa ngi nuyu nag équipe bu. TFM ngonal mhm. di émission bi nga xam ne benn émission ëpp ko doole fi mu nekk nii. Mhm. Eh, di am mbégte nag ci ñëw gi mu fi ñëw. Mhm. ngir mën a jàkkaarloog adduna. mën a wax li ma xalaat. ak li may yëg. incha allah hmm. kon maa ngi nuyu Aziz mii. di ko nuyu bu baax a baax a baax di ko félicité. te di ko xamal ni moom it ku bëri ay soppe la allah. waxuma la dara sax waaye bi ma toogee dégg benn bis. Euh, seetaan télé en direct. Mhm. ma gis Sanex di ko tooñ naan ko alaaji da ngaa dawal. <laughs> naan ko alaaji. waaw alaaji réew ma <laughs> ma. 2017 bi moom ah. <laughs> loolu rey naa ko <laughs> nga gudd fa ndax dina la eh, defe naa ne ci wax jooju mu ne saa def noonu damaa daw. Mhm. maa nga woon France jaar naa fa bés. Mhm. waaw. Eh, ñu invité ma fa benn kër. Mhm. mais juste am na benn wayam bu génn muy eh, yóbbante. yóbbante yóbbante. waaw juste rek mu may ma ci way bi. waaw ah, may wax lan la lan laa ci déggaat. man de dootuma wax kenn benn way. damay jaxase way laa parce que yóbbante la yaa ngi dem réew ma. yaa ngi dinaa la jox yóbbal. baa dooma njuuy ndax dama laa wóolu. Ah. nga ànd ak sa waay. wala ngeen xoslandoo bitim réew. yow ngay ñëw njëkk ñëw mu yóbbante la ah yow nga jaar fu la neex. joxe woo yóbbante ba. bari na nag lu muy. na bari na bari na. alaaj ñi mu ko woyee moo gën a. may ma ci may ma ci ma ci yow. yaa ngi dem réew la jox yóbbal. baadoo ma njuyoo saane. ndax dama laa comme par exemple nga baal ma ci kàllaam bu ñu dee onk naan. ndax dañuy mën a way. est-ce que seetlu nga ko ci famille Seck. waaw waaw macha allah. waaw seen waye am ndeysaan. waaw nga ne yow voilà seen am yërmande. ndeysaan waaw waaw. donc bu koy waaj jooy. Eh. ma ne ndeysaan Modou Modou émigré. boo fa nekkee dégg way yi. mais waa ji daf ko dund way boobu quoi. Ah, day mel yow la ñuy waxal day ah. mais tellement que dafa dem ku dem saa yóbbante woon demoon tey. merci merci ñàkkul na dafa ah, ba tey waaw man fu may njëkk man question bi. Eh, eh. mooy usmaan Seck. tey jii ku ko xam. yàgg koo xam ci wetu coon. dëgg ndax defe naa ne maa ngi fàttaliku coon ne na Ousmane de déggal na ma. Ah, waaw waay Ousmane du ginaar bu ñu jaay ba muy mbëkke. moo tax tey beral naa ko da xamul ni yëg naa ko. waaw dem la tourné. Mm-hmm. toog na fii Sénégal deux ans gisul jabaram deux ans ñaari at. waaw drapeau bi koy gis nii nag ku am lislaam ak imaan la. ma sàkk la wax ku am lislaam la ak imaan la am sutura ci boppam dégg nga mu toog ñaari at gisul jabar ci de moom yëgul ni sax xam naa loolu xam naa moo ko waxee léegi dina tiit mu dem tourné ca France jabar ji ñëw fekk ko ci hôtel bi mu ne mu war a ak jabar bi génn am deux ans gisoo sa jabar fekk ci guddi gi ñoom dañoo waroon a dem beneen dëkk ci ndigal coon sekk ni ko doo dem mu mu ni jabar ji kon demal parce que sama kilifa nee na ma du ma dem maa ko wax mu toog waxal ci sa relation ak tarbiwu bi ak fi nga jaar amul ah yow nga ne xam naa loolu ah. ah. loolu waaw yàlla na yàlla xiir ci def lu baax te di ko wax. parce que fañ koy nettalee. doo xam mm, doo ko xam. Mm. Mm. te ñun ñëpp nag ay jeunes lañu après tout. te ku ne xam na ne àdduna erreur lu yomb la. te ku nekk loo baax la rek am na leneen loo xam ni bëggoo ku ko xam. dëgg la. yàlla moo moo ñu bind ci ci ci matadi. waaye li jara li jara li jara jàpp daal. te jara xam te jara ñaan mooy yàlla na yàlla xiir ci def lu baax. sama relation nag coon mooy ginnaaw bi ñu bokkee ndey ak baay. Mm. ah yéen a bokk ndey waaw ah, waaw man ak coon. ak Mapenda Seck. Mapenda waaw. Kéba moo topp ci man. waaw bu re waaw. kooku ci man la nekkoon. Euh, y a un an mm-hmm. mu demee waaw ah, ci man la nag kii xam na li may wax. kii xam Kéba man. Ah. waaw Samb euh, euh, ñoo bokk ndey ak baay. mais mu nekkoon tamit sama sama sama sama kilifa. Mhm. ci wàllu wi ñuy def muy wàllu musique. muy wàllu musique. Euh, ñu naa may relation yoo xam ne relation yu profonde la. Mhm. ci ma jàng ci moom lu bari ndax koo nekkal foofu nga am loo jàng ci moom. Mhm. waaye avant may nekk ci coon sax faatu Guewel la mën nit ñi njëkk a xamee. nekkoon nga ànd naag moom moom a njëkk a yóbbu tournée européenne dëgg yàlla dëkk yu bari ci Sénégal sax ak sous région bi su ma ko xamee yàlla ak moom la waaw. da ko doon aw. mu njëkk ñaari CD yi mu njëkk a génne yëpp mbaar maay njolli maay mbëpp maay tegale ay six ñu jox ma ko. ma def lépp. bi la ne. donc yàlla dogal lool Ndeye Marie Ndiaye mii. ànd naa ak moom. Cheikh Tidiane dem na ay jamono temps yi muy ñu bari lu mu arrange daanaka maa koy aw donc ma jóge fa ñëw ci Mapenda nag moom it ñu bokk ndey ak baay. waaw ma def ci moom ay at ci coon laa mujjee falaa laa beroo. coon def nga ci moom ñaata at. fukki at. dix ans. kon yow ci diggante ci diggante Fatou Guewel. Mapenda ak coon def nga ci ñaata at ci way. Fatou Guewel def naa ci moom juróom-benni at. six ans plus dix ans ma ans. def naa ci moom cinq ans. seize plus cinq. vingt et un vingt et un ans hmm. muy tarbiwu. d'apprentissage. d'apprentissage loolu eh. doom ju mën a way moom mi. Eh. doom ju mën a way laam ah. di toj dëkk bi. man hmm. moom laa tuddee man Ndiaye non problème. mooy boy bi ah, waaw. mooy boy bi ànd nga ak doomam. ànd ànd naa waxu la ni doomam la. kooku tey mu leer kooku moom la ma njaay man yow. waaw. dama yaakaar ni yow. loolu dama lay suivre xam nga yow dama la bëgg. dañoo bëggante waaw loolu moom ah. yàlla def na ko moom. waaw ah, dañoo bëggante non xoolal kaa ma xamal la nag yéen ñaar ñii. aw ma xarit wala séex yu ma lu leen sut. waaw bu ma deewoon tey yéen a may suul. yàlla na xam ngeen li ma am ak li ma ñàkk. du ma la mën a suul. ma leen nëbb. xanaa dinaa jooy moom boo deewoon du ma suul. daa ragal suul moom du dem. du wax du dem kon. yàlla yàlla dee ma ni ko dañ ko doo dem daf maa ko bas ni ma kaay tëdd kii moom mi ma naan ko kuuse kuuse ah, tuddal rek grand mais sa waay sa waay kii sama xarit la de dëgg dama ko bëgg dañoo bëgg dañoo bëgg yéen a ànd wool ma Njaay ah. wool ma Njaay yow ah booy ma Njaay eh. kaay ah ma Njaay mi ngi toj eh. ah bokk ci gis dégg nga loolu Samb. Eh? kon moom bok ah wallaahi si la bokk. Eh? Euh. voilà. mu Ndiaye yegg si ma Ndiaye ngi nii. ah, ah ma Ndiaye si daa am nu mu nuyoo. ma Ndiaye daa tukk. loolu day yomb de. daa tukk. sa papa daa am nu ma Ndiaye toogal. Samba bim te maam jëy joo. ndeysaan. dégg xeex leen ay mu dem terrasse leen di naan sama bim te maam lu mu def joo kon Québec Iniestade ciw ciw bi xeex leen ko ay mu dem terrasse leen di na maaw yasi ko dundey ma sama joo jaalo jaalo fii foofu ne fooy ñëw ah. mu ni la sa lii sa waaw xam nga li mu way du aasam eh. du aasam dama ne ko teel ngaa waane waaw ñii ñu bëri ñemewuñu fi way yi nga nag ah, ñoom ñi ci ëpp ci ñoom koo fi wayloo mu ne la sa lii sa lii sa lee juutu la ma ngeetu la fàngaañu la gaay tëgg baax tëgg eh. eh. mu daaneel kii ñëw def démb ah, man wax naa la ko validé ah, xaaral rek waaw kii sa doom la waaw man saa ñoo ànd ñëw waaw turam jiitu woon jëmmam ci man. moom moom ma Ndiaye. moom ma Ndiaye mii. noo problème waaw. donc moom it li ma doon wax donnu na woy waaw ndax bu baay ji tarbe woo. waaw ba nekk toll fi mu toll tey moom mu dikk woy tooñul. Hmm. ah waa booy. man kon doomu Ousmane Seck bu ñu doon wax naan Ousmane Seck am na doom ju dàqa woy Waly Seck. Hmm. yow la. <laughs> Eh, booy eh. bàyyi sa loos wi ngay njabt nag. waaw daa garaaw booy waali booy waali booy bi mu tibbee ci kaw rek naan nii. booy waali daa garaaw. di ree rek indiwuñu la fi ay ree. asalaamaaleykum maaleykum salaam. avant tout. waaw eh, may gërëm sama ñaari waajur. waaw. di sant sama sëriñ sëñ Abdou Karim borom Makaarimal Axlaa. Makaarimal Axlaa suñu xarit. Eh, di sant kilifa diine yëpp. Oh. di nuyu Sénégal di nuyu sama yaay ak sama papa yi. di leen nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen ñi toog fii di euh, di samay mën naa ni samay papa fi toog. Ah, mën naa ni si waaw waaw. Eh, booy nag bul daaw la nga def jugement. Ah. <laughs> booy booy bu diib bi. te pour wuyu ci question yi. Ah. booy yow mbaa doo woote soirée rek ko ba mu jeex ñu mais mais mais boo ko fekkee soirée def la wala. Eh. Ah. Ah. non mën na deful mais na ba reeji waaw ñu ni waaw mu ni la ñu am na eh, Ousmane Seck am na doom ju dàq way mag kii Waly Seck. Waly ma akam Waly ay. Waly nag. waaw. Eh, dama koy nuyu ndax sama mag ju baax la. dëgg la Waly la mag. waaw ju ñàkki ñaan loo dëgg yàlla. Mhm. ci ginnaawam nag lay topp. Ah, ndax papa Thion sama papa da koo tarbiyu. waa kon man nag wax dëgg yàlla. ci gannaaw comme mooy sama mag. Ah. te wax dëgg yàlla ginnaaw bàyyi it moom mooy mooy sama sëriñ. waaye mooy seen mooy seen coon. moo tax nga soog a nduróoyee. <laughs> waaw ci noonu muy waaye ak li ñuy tarbiyu. ndax mag ju ñàkk ki ñaan la wax dëgg yàlla. kon daal luy nit ñi di wax loolu na ma wax. ci loolu nit ñi nañu rek kon nag lii nit ñi di wax daal yow nan ñooy nit ñi doo ko mos a. population bi man man dama naan mais ñun ñu lu ñu wax ni mooy lan mooy waali rek. daay la mais dañ ko yàgg wax yow lan nga wax ci loolu dégg nga ko wala déggoo loolu. déggoo ko. déggoo ko mais eh, Ousmane Seck dégg nga. Ah, dégg yow nekkoo fi di wuyul kii ay question dégg nga wala déggoo dégg ma la. très ah, ah, sa baay wax da ngay kii eh. mais nag ñoom ñaar eh. man for naa ci wewu bay ay xarit lañu. dëgg la moom mii ak waaj ay complice lañu sax dégg naa. c'est bien moom mii lu bari lu muy def da ciy diisoog waaj. ba ca anniversaire bi passé ko jox. dëgg la ay gaañ lañu. bul déglu yooyu nag. waa moom moom way na. génn na single génn nga CD. man daal xam naa ne gone yi teel nañ koo topp. def naa def naa benn single way wi. waaw way ko yaay na yaa ngi nogay waaw mooy seen gàllaaj mooy sama maam mooy sama maam mooy sama yaay. yaa nogay waaw ndax moom ma yar man mën naa ni maa nekkoon sax caatu yaay nogay. ndeysaan mais mais Ousmane nan la lay def tey yow ak yow musique kenn dootu la ci wax dara. Mhm. tey nga gis sa doom tey màgg. parce que man tey tey man sama doom bu mu judd woon ne day théâtre ji mën naa ko rey bu moytu. lu tax non c'est parce que coono gi ma ci daj. Ah. ak métti fu ma jaar. Mhm. ak wax ju bari ji. billaay bëgguma moom mu jaar ci loolu. moom du ci conscient quoi. du ko xam. yàlla njuuy la sant de ah, njuuy. waaw ma yàlla njuulee ma xam ne métier bu noble la choisir. mais tey man du ma du ma parce que dafa métti. Mhm. tey yow nga gis sa doom tey di évoluer ci musique ba commencé am tour déjà tey nan la la def yow. wala une très bonne question. parce que man musuma jooy ci télé musuma jooy ci rajo. ma jooy ci benn émission. mais Pape Cheikh. Pape Cheikh Diallo. Mhm. daf ma invité ñu def benn plateau boobu mi ngi woon Sen TV. waaw ñu def benn plateau bon vivement ce soir xaw ma daal je sais pas fàtte naa. Mhm. ndekete dem nañ kër ga jël sama doom yi. moom ñu jëlaale ko. Euh, mu def benn benn kii ci man. mu way na wayul sax dafa def témoignage rek. Pape Seck ni ma nag bon Ousmane am na lu ñu def nangam sangam fekk na moom ñëw na ba bëgguma woon mu way hmm. mais ñëw na ba wax sama doom yi ñaay seex yi jumeaux yi ah, ñëw nañ man ma dañu bëgg nga bàyyi Mandiaye mu way nag parce que comme loolu la bëgg bàyyi na jàng bàyyi na lépp papa yaa ko war a jàppale. ñoom ay jigéen lañu jour boobu moom damaa jooy ca kër ga moom. Oh, ñu jigéen ay góor lañu. ay góor lañu ak Bamba. ndeysaan. Mm-hmm. ñu ne ma papa dañu bëggoon Mandiaye nga bàyyi ko mu bu la neexul tam ñu duñ ci wax. Mandiaye parce que ñoom lu ma wax rek ñoom loolu la ñu wax. Mm-hmm. xaw ma Mandiaye leen yónni. Mm-hmm. xaw ma lan. ñu ne ma dañu bëgg daal wax ji ñuy wax ak yow. bu la neexee ñu wax bu la neexul tam ñu bàyyi ndax waxu Mandiaye la ak musique man leen toog ñu ne ma dañu bëgg papa nga bàyyi ma Ndiaye mu way ndax bëgg na ko te mi na nëbbatu di ko def. Hmm. te ñemewu la ko wax. ndeysaan. jour boobu nag damaa jooy jooy jooy jooy parce que tey gi su ma leen juróon ba pare ñuy reyantee que ngaa yow di kii day métti du dëgg xanaa balaa nga naan jox paa bi voilà ah, ah, ah loolu de moom xanaa du yoon de ay ca non non non non non yéen ay gan yi yéen ay gan ah mënul ataaya nag tey nga dee a nga dee wante bii muy ataaya nii tey nga dee tey tey jii waaw ñu ngi ñu ngi woon fu neex ñu fu neex a neex. ñu ngi woon fu ko dàq yow nga léegi. bu da nga gaaw hmm. ci télé. ndeysaan mais gis ne ko wanee. waaw. ma jékki-jékki gis ko ñu wane ko. naa ko yow léegi sa papa comme léegi màgg nga ba war ko fekk si ci Ousband mu naan maa ngi ci sama ginnaaw papa ndax dama ñëw pour jàppale ko te dëgg yàlla dama bëgg way te damaa bëgg sama papa te ma ne gis nga bi may daanu ci kaw kii bi. ndeysaan doo ko mën waaw doom la affaire deret dafa garaaw moo tax li nga wax nii. Mm-hmm. tey dama koo yërëm sur le champ. Mm. parce que li nga wax nii. Mm-hmm. damaa xam ni bëgg na. waaye xamul li koy xaar xamul mm. li koy xaar ndax li ngay xeeb yow. am na ñoo xam ni xeebewuñ ko noonu. Mm-hmm. gi am na leneen luñ ko gisee ba mu jaral leen lu ne. dëgg la. te la yàlla dana metti mhm. parce que ñun ñii fi ñu daj ba toog fii. wallaahi lu ne gis nañ ko. wallaahi mhm. lu ne dégg nañ ko. Mhm. lu ñu am def ko ci suñu bopp te taxul nu mucc. dëgg la léegi nag boo conscient wul ci loolu mu nekk loo xam ne rek ndeysaan mënoon naa nekk ndab loo xam ne ku ne mën na cee tibb ba suur. dem keneen ñëw. te doo ci am benn bàkkaar. waaye dafa am ñoo xam ne gisewuñ ko noonu. dëgg la sax. am na ñoo xam ne jaral na leen lu ne. def nañu àdduna muy kër. te adduna du kër. Hmm. am na ñu ragal yàlla waaye am na ñu ragal yàlla. wallaahi dëgg la ma xam ne loolu wallaahi ma xam ne loolu bu ci conscient wul. Hmm. du ci dugg waaye nag yàlla nag mooy sàmm. ak ñaanu baay ñaanu mbaay ñaanu ndey. ak ñaanu waaw. moo tax ku wéeru. waaw mën ngaa mucc. waaw du kenn du bu ma. waaw mais kilifa mën ngaa mucc. waaye boo amul kilifa. Hmm. li lay jay mooy ëpp doole ba nga xam ne fan lay dugal. da nga fa bëgg a génn te doo fa mën a génn waaw man te boobaa kilifa dootu ci mën dara ma mm. njaay mm. yàlla nag ci yàlla musa ma njaay Ousmane li nga wax ah. torop ma njaay mii mm. deret wayloo ko ak bëgg-bëgg nit deret wayloo Wally Seck ak bëgg-bëgg parce que ñoom dañu doon dem tourner Angleterre waaw yow yow mais ci ba ñuy dem tourner Angleterre ba ah. ñuy dem tourner Angleterre ànd ak moom ci la yóbbu Wally Seck pour mu football waaw mm-hmm. man bi ma demee Angleterre ñoom bi ñu ñibbisee man ma dem Angleterre. waaw. Ah. waali way euh, single bi mu fa génnee. waaw. maa ko njëkk déglu maa ko njëkk a dégg coon sekk man. waaw. boobu waali ñemewul way. ñu koy nëbb li muy wax ñu dugal ko studio di ko nëbb. Mhm. parce que papa ji boobu da ko yóbbu woon pour mu football yi. dafa mën a mu dem njuuy way. Mhm. moom est-ce que di koy woo léeg-léeg mu dugal benn octave. waaw mu def fausse note wala mu wa mu waye fu mu warul waye ni leen Thione nga woo ko ne ko Mandiaye fii nga waye du foofu est-ce que di nga koy jël ay répétition di nga ko jël ay hors antenne moom damaa bëggoon moom nga laajaat ko loolu déedéet yow laa laaj fii ku nekk ak ah. parce que dama lay wax ni la waaw Ousmane fii du salon naanal kii parce que ñaari kaasa fi am ah, ngay jël sa temps yaa ma jox ba pare di ma laaj waaw dafa tàng rek mani moom dafa mel ni ay xaasunkeel ngeen ñuy tëggal nii <laughs> li muy tëgg mi ngi nekk sama xol. nga Mali fi mu nekk nii ñëw Sénégal. doo jàpp Sénégal. ñëwaat Sénégal Sénégal mënoo ko xanaa. jàpp jàpp Sénégal waaw Fatou Yadaake baaxoon na. naanal naanal noo di yor naanal. non naanal non naanal. da ngay xeeb suñu attaque. ma jaay kii naan na ba pare. Ah? kii naan na ba pare naanal. attaque bi la bëgg a wax dafa xor mbet loolu la bëgg a wax fii mais. Ousseyn dinañ di war nga. war nga ah. seen i collègues. loolu fi mu ne saa neex saa neex lay lay lay saboté. lii tërëwul lii tërëwul. ndox laa def ci balade bi damaa juum. loolu waaw waaw. léegi. waaw ah, ma jóg jox mais bàyyi bàyyi. ak a yaru te baax. Euh, sama kër dafa ñëw mu am benn xaritam bu ñuy wax Ahmed Niang. waaw directeur euh, ak Souleymane ñoom la àndal ñëw foofu. waaw ci biiri way ñoom ndeysaan xam nga boo ànd ak rek bëgg ko ñu bëgg ko lool. waaw ci biir wax ma leen di tas ñu naan Ameth Niang na ko dafa mën a woy waaw ay copain am lañ ay copain am waaw. waaw. naan ko daal dama bëgg paa kii woyagul. genre yooyu. waaw ma di leen xool rek. <laughs> muy way rek. Sénégal mais woyagul moom woyee koy ma jékki-jékki ko ni ko yow. ma ne ko yow li ma bëgg nga way waaye goo ko de mu naan ma paa man damaa mën a way ma ko ah. <laughs> mën ko seet <laughs> ah loolu de baax na gëm sa bopp baax na. waaw waaye man ko man ki sama kanam man ko yow mënoo dara. Mm-hmm. man ko ba sama kanam man ko yow wayoo. waaw di wala dàq way di wala way di wala mënuma ñooñu dañ ma fan man ko non ñooñu mun nañ la fan sax mm. ndax am nga lu ñu amul. waaw waaye way. dëgg man ko Youssou Ndour daf ma mës wax ni ma talent rek doyul. xalif mm-hmm. général day am lu muy àndal te kooku c'est le mm-hmm. ma di ko xamal ni ko way. Mm. sa yu xëyee da war a gën a yokk. dëgg la mi ngi gën a mag mais mi ngi gën a. gën a mën a way macha allah xool li mu def barki dem. moo jaaxal ñëpp. toj loolu laa bëgg moom mu def loolu si boppam xam que ni les plus grandes stars du monde. Mhm. chaque jour dañuy dolli ko. baa la ko wax. Mhm. du nelaw de. boo nee damaa mën li may def rek taxaw. yéen ñi li ngeen def bu ngeen jëmoon ci seen sketch yi ngeen daan def. yéen yëngal ngeen adduna. Mhm. yeneen a ngi ñëw ñu gën a garaaw sax. waaye dama ne yooyu yooyu rek doyoon na bu ngeen yemoon foofu. histoire bi marqué na leen ba pare. dëgg la. waaye xoolal fi ngeen jaar ak ba fi ngeen toll nii wiiri wiiri. te leer na man yéen a ngeeg yeneen yu ngeen xam ni génnagul. maa la ko wax. ce qui veut dire que noppaluwu leen yéen a ngi liggéey. fa nga waxee moom kon. kon fa ma waxeek ak moom. moom dégguma moo tax man la critique boobu ngay wax noonu. Mm-hmm. man duma jur doom ba pare di la. non non man comprendre doon ndax dina way. dina la wax dégg lu ma la wax. nga uh, uh, nga naan hmm, xam nga tax tax man laaj la. man la laaj ko. waaw léeg day nekk sax en pleine soirée. Mhm. mu yow si yàgg ma fi ma toog comme mooy def première part. waaw ma yow muy wax ma xool ko ba mu xool ko ma. xam ah, ah. waaw. mun a teg. Mhm. waaw waaw am loolu. waaw. foog nga am ku naan la mhm. ah. waaw yaa ngi mamm de. yaa ngi yaa ngi yaa ngi mamm. loolu ñun sens bi ñu amoon. dëgg macha allah xam nga coon daa nga ko ay ba mu yàgg nii bu dee folklore mu jël micro bi dóor la ko ci gémmiñ. tel ah. boo moytu sa tuñ day naaj. waaw dégg naa yooyu la daan def coon seet. nga ah. génn gaam. Hmm. dégg mais kenn rëccuwu ko. la ko wax kenn ku ko rëccu. waaw waaw. kum ci mës a critiquer rek yokk nga jom. xam nga li tax. te dana ñëwit nga xam ni ah mooy sëriñ bi nag. wallaay ndeysaan wallaay dëgg la. Mm. man sëriñ bi chaque persévérance de l' élève. waaw révèle. la persévérance de son maître de son maître effectivement. comme ça ka ngi nii. waaw yow mm. ma maay booy. waaw léegi nañ ñëw nag ci sa waay. ma njaay waaw maay booy. ala def voilà mm. maay booy mais nag mais nag yaru bi. man léeg-léeg foog muy bandi nag di xaw a. Eh, booy bi bandi la ñu ne la. muy ah. bandi. Eh. man xam naa booy bi eh. ci laa jëm nii ci moom. waaw ñëwal loolu laa jëm sax. ma njaay. waaw single la génnagum ah. waaw benn way. fi mu toll nii booy xalamal ngay naan. fi mu toll nii ma njaay benn way nga génne non ah, moom laa lay wax nii. xalam ak xalam ak naan mën naa bàyyi ko mën naa tax. génne naa beneen morso. non see xale yi laaj dama yow. benn génne naa beneen morso. non ñaata morso nga defagum ci marché bi. riiral dëkk bi. loolu laa ko bëgg a laaj nag. loolu laa ko bëgg a laaj Amba Ndiaye. sa micro bi ci kaw ah, ñaari morso. waaw riiral dëkk bi. waaw boo duggee soirée. waaw soirée grand bi. waaw wala Mandiaye soirée. day fees dell. fan nga soirée te fan yu mu am. ak pentola fu ne lay dëgg lu dëgg te fan suñu mu am mooy ñi nga xam ni euh, ku ñu àndal nga dem muy xale ak jigéen jigéen loolu lan la la def yow nga génn ñaari morceau rek am pour bi déjà tey jii qu'est-ce que ça te bon avant tout jigéen mooy suñu yaay mhm. te wax dëgg yàlla e, man aw ma sax xaw ma sax lu ma leen defal mhm. wax dëgg yàlla bëgg nañ doomu Pape Ousmane te yàlla tax waaye wax dëgg yàlla ma leen raw ndax ku ne xam na ni jigéen ñu jur te jigéen mën naa jur ilimaan mhm. dëgg la yaa may dégg mhm. mën naa jur lu ne dëgg la kon man fonk naa jigéen ñi mhm. eh, xaw ma nag lu ma leen defal waaye ñu ma bëggal seen bopp te yàlla tax waaw mbaa jàpp nga tamit nu ñu la mën a yëkkatee ah. noonu lañ la mën a wàcceewaat léegi mbaa xam nga loolu loolu dëgg la waaye waaye yàlla na law ah. ak góorgóorlu ak góorgóorlu xam <laughs> waaw <laughs> xam mbir mi li ci ne lépp. <laughs> waaw ah, eh, ñaari morceau laa génne. waaw benn bi maa ngi ko woy Yaay Nogay. Mhm. bi maa ngi ko woy Baye Cheikh. kan mooy Baye Cheikh Baye Cheikh mooy waaw maam Cheikh Seck. kon génn koo famille bi yow. waaw yaa ngi ci biir famille bi. waaye nag eh, album bi waaw. maa ngi ànd ak papa. waaw ñu koy liggéey. Uh-huh. bis bu ne ah, ma acca bu ne ma acca. waaw ma génne. Uh-huh. ndigalam rek laay rek ngay xaar. waaw moytu koo xaar vingt ans dix def ci coon nag de. majee na na nuroo. liggéey rek la nu gëm góorgóorlu leen kontaan naa. a way. ak lay di sant. kontaan na bopp ji kontaan na. ah Birame Yacine Bouba. maa joor saana bi gée maa ngi yor. gëj na gën. Kajoor yëngu na. adduna ngi nii moom mi day naxe adduna ngi tey na la joyloo ëllëg ay yoon yoon sa wàjjee yoon dégg boy bi dégg boy bi dégg boy yow boy ku garaaw la dafa waane boy si eh, la. te yow doo ah, ay jikko ay ngi nii jar ay ah, jikko. lu sa morom am yéene koko ndax moo lay noppal. Ah. Samb baalal li waay. oh ay jikko ngi nii sa neex jar na ay Sénégal am nga oh ñaar no jikko ngi nii jar ay bu ma mënoon a waay. tey jikko yi. Mm. dégg nga Jojo Serigne si mu lu bàcc lee ko ko yàq ko def mer mer mer mer ay jikko ngi ah. jar naa xool. fo se rendez-vous li sa morom am yéene kooko ndax moo lay noppal. yéen lu borom a cay fanaan bu dee lu baax la fa ngay am bu dee lu bon la ngay am. dégg naa dëgg. xoolal mag ju baax dafay. yéenum rakkam yéenum koy waaye rakk ju baax it moom. day fokki magam. dégg nga ko. dégg nga ngi nii moom mi day naxee. ana borom alal yi fi woon. ana borom tur yi fi bul ko gëm gëmul la moom moom. dunya day naxe. wallaahi wallaahi. tey. dina la jooyloo ay yoon yoon sa waaje yoon ñii nii ngeen koy defee le treize grand théâtre le treize grand théâtre nii ngeen koy defee foog xalam yee ñëw damaa bëgg waaw dina fees de xalam yi dar ñu ay xalam lépp ay ñëw mag yi géwél yi nekk ci ginnaaw waaw ngeen ay néegu ñax ca ginnaaw ñoom sooda mamaak ndeysaan yaa ngi tudd ñu baax ñoom ci ajaratu Kina Laam. ay Daaru Mbay. ñoom Daaru Mbay Ndeye Mbay ma ak yaayu yaayu kii Fatou Ndiaye yaayu Kumba Gawlo ndax Kumba Gawlo sax mooy sama sama marraine de l' événement ah. mooy Kumba Gawlo. Kumba Gawlo laa def la marraine de l' événement. waaw waaw waaw ndeysaan. loolu rafet na loolu rafet na. waxtaan naa ci ak moom mu ne ma kontaan naa. waaw sagal nga ma façon sagal bu ne sagal nañ ma ko. waaye da ngay sama nawle di sama sama sama mbokk moo xam tam dañoo bokk aar waaye xam naa ni xeeboo ma. tigres la day dem ba jeex. te muy jigéen di ko am jom. Mm-hmm. dëgg la. jënd mm-hmm. ko dégg ci dara Ousmane sa bés bi képp ku ma xam rek ngay nit ku baax di sama nit dinaa ko wax mu jàpp ci sa bés bi. ndax lii rek ma sagal. muy le treize. le treize janvier ci grand. le treize janvier c'est bientôt. ba tax na il faut ñu def yëfi géwél ndax dañoo invité géwal yëpp ñi nga xam ah. dañoo xam cosaan. waaw tey déglu cosaan. ndax way yi ma doon way sànq ñoom Amath Ndiaye Samb. Hmm. ñoom Samba Jabare. ñoom Samba Jabare Samb. yàlla na yàlla na leen Ablaye ah, Naar. Eh, eh, eh, tey waa jeex toj fii. ah la ilaha illallah. El Hadj Ablaye Naar tey jàngoo toj sama papa ja moom it. ah. waaw. ñooñu ñoo daan way buum yi. waaw ndeysaan. yii buur yi dañ ko si dañ daan toog seen. wax ndax histoire a ngi ci. diine ngi ci maanaam boo bu fekkee ne jàngaloo alxuraan mm-hmm. nga déglu géwél bi nga xam ne jàng na maa mu xam histoire muy eh, gàngoo mii di xalam mm-hmm. muy wax mm-hmm. mais ngi ñëw Ousmane waaw ma jaay deux morceaux pentola ngay joué ak fan pentola ak euh, Oblette Almadi Oblette Almadi nga xam ni ak sample euh, Tëngéej d'accord Sall. sa papa macha allah yëkkati la rek samp la seenu Grand Théâtre incha allah le treize. mu def première partie 1800 personnes. assise c'est am ñu taxaw sax nit ñi saal ba ci kàttanu yàlla dina fees. dell nit ñooñu ñëpp ni jan ci sa kanam. nan nga préparé. parce que loo gis nag expérience la. mbooloo kenn du ko ñeme. dañ koy ah, nan nga préparé. avant tout Eh, dama koy sant moom. waaw ndax wax dëgg yàlla man ragal ma fi mu nekk ni tiitu ma. lu tax papa ndax maa ngi ci ginnaaw. très bien léegi 1800 personnes nga jékki-jékki rek ñu jàng ci seen kanam sa premier spectacle bu mag a mag a mag mën nañoo wax. ça va chauffer incha allah. noo koy aborder fi mu toll dina tàng dina garaaw. garaaw mën naa tàng garaaw ci beneen côté de. nee ma neex mën naa tàng garaaw déraillé de. fii laa la ko waxee ngoon waaw. le 13 janvier incha allah. waaw ku bëgg a gis spectacle bu neex. waaw fekkee premier partie Mandiaye. Hmm. deuxième partie Pape Ousmane. waaw spectacle bu garaaw dina am. grand doo am trac doo def dara ngay bi. xamaguma damay xaar papa ne ma lii ak lii ma ne ko acca. ba la ko wax est mën nañoo préparer wala ñu xaar yow sa première partie nga waaye doo ko Wally ba tey mën na nekk. waaw wala mën na mais li garaaw na gis nga moom yàggul daf na benn show populaire. Hmm. ci la ko waa li fekk jox ko cadeau caabi oto. la defee show bi. ñu ko defoon géej waaye ci benn bayal boo xam ni wax dëgg yàlla. yow yaa leen ko mayoon. si. super c'est très bien ça. man eh, concert bi. sama xarit bi naan Ameth Niang ak Ameth Ndiku Ndiaye bi may woo ay huit heures. Hmm. ne ma terrain golf fees na leen non c'est pas vrai. waaw ndeysaan fan nga nekk. man la non booy bàyyi leen ni ngeen wax ñu ne ma terrain golf kenn xaju fi. di la xaar. nga def fa ñaata ma ñëw def naa trois morceaux. ndeysaan. Mandiaye lan mooy sa technique ci way. sama technique lan mooy sa fort ci way parce que way ku nekk da ci am nag technique sax danga ci am lan mooy sa fort ñii dañuy way ci suuf ñii dañuy way ci kaw. ñii dañuy boole yëpp di ci way. te xam naa ni amagoo expérience way ci lépp. xam la. lan mooy sa mhm. technique ci way. comme euh, euh, euh, pour le moment. Hmm. comme damay jàng. Hmm. naa ko raay. Ah, waaw waaw comprendre nga. ak ah, ah, <laughs> raay. dama nga dégg de. dama xam bu Papa Thion. ma tegal ko morceau bi ma génnee. waaw. dama bi may egsee dañu ma seetaan naa sa benn mu ne ma xaa na nga def. man ko maa ngi jàmm mu ne ma seetaan naa sa benn gis naa ko ci télé bi nga way sa maam. waaw. boobu waaw boobu moom wax dëgg yàlla amul dara lu ma ci wax. waaw ndax nice na. ma tegal ko morceau beneen morso bi. mun la la man ko bii laa war a clip yi mu déglu déglu déglu déglu ne ma xaar lan nga wax fii man ko dama ni Baye Cheikh Ndiaye mu ne ma noo tagg bi na leer. waaw waaw. ma ko ah bon mu ne ma waaw. ma ko waaw d'accord mu ne ma te na ngay way fii. ci suuf. <laughs> papa coono la wax lool mu mu ni ngay way fii. ba ci kanam. mu ne ma na ngay way fii. waaw. bu ci kanamee. xam naa ni dëgg yàlla bëgg ngaa dem. waaw waaye xaaral na wayal fii mën ko waa d'accord. na ah. <laughs> bu la ko waxee rek bu waxantu de na nga way fii na nga xaar. xam naa ni bëgg ngaa dem parce que jeune jeunesse jeune. Mm-hmm. xam nga deretu ndaw. Mm-hmm. Youssou Ndour da koy wax xam naa ni ay ndaw ngeen. seeni deret day tàng mhm. mais dee leen ànd ak seen sago mhm. loolu waxam la Youssou Ndour mhm. fu mu la jotee téléphone loolu la lay wax xam naa ne ay ndaw ngeen te ndaw deretam day tàng mais na ngeen di ànd ak seen sago c'est important c'est important dégg nga ko Papa Thione wax deel way fii xam naa ne bëgg ngaa dem mais defal ndànk defal ndànk rek gis nga bu la waxee ni foncel rek day fekk ni mat na pour nga foncel Cheikh Ndiaye xam nga ni biir Almadi gi doo fi daw 150 kilomètres heure. fan ngay dawee 150 kilomètres heure. péage ba péage ba. Mm-hmm. xaaral ba yëg waaw xaaral ba yëg péage. waaw mais Samb. waaw waaw ma Ndiaye. parce que tamit euh, kuy liggéey ku ne. boon sa sago da ngay wàcc sa papa. waaw ne ko papa toogal noppalu. ma boot kër gi Ousmane door ko de. Ousmane waaye est ce que yaa ngi sóor ne paa bi parce que 21 ans. mu carrière ko. tey jii jot na nag nga ne ko papa toogal. man ma boot uus band léegi. au lieu de uus band mais day nekk euh, ma njaay band. zabe boot ko. zabe coono ngi ne nangul la toog sax. mais mais attention par amour la koy defee wala par xaalis. Eh, mani nga ni lan par amour coon mais. par amour bi coon na ko na ko waaye dem na ko coon na bàyyil. li tax yéen mbër yu bëri dafa dal kii. ci basang gi waaw yëpp ci ci kii ba muy way xam nga ni kii a ko magoon mais dafa xam nekk xale nii li na def naan vingt et un de vingt et de carrière kii kon ban âge la wayee te kii ñaata ñaata temps ko ma ko dese ci carrière. bari na dëgguma la dañoo ànd ma ak moom. waaw waaw sant ci bëpp alaaj bii moom neex na. Euh, ñu war a def émission. déglu ko déglu ko. waaw waaw ñu war a def émission. waaw war nga seen i koo di euh, ñëw. ñu dajeeg sama sama sama yaay Kiné Lam. waaw. Kiné Lam de boobu lañ daw. sama papa na ko kii sama doom la Mandiaye. waaw. nga avant ma koy wax kii sama doom la. Ah. dama ko kaay nuyoo kii. mu ne mu ne ma yaa kii ku mag. bilaay. loolu la Kiné Lam Kiné Lam dee ma wax lii. Kiné moom est-ce que boobu. <laughs> pression boobu xamul xamagul ni. ba pression 24 ko jàpp. xamagul ni xamagul ni sama doom la. Hmm. dafa ñëw mën na ko kaay nuyu sa bàjjen bi rek laa ko wax. ah ci kaay nuyoo bi mun lay laaj. kat moom ndax kaay yow kii kii yaa kii ku magati sax mën ko kii sama doom la mënu ma non loolu mënu. ah sa rakk la ko teg ko kii ma sama taaw. super waaw mais léegi. léegi dama bëgg. ñu wax ci le treize bi. ah dafay am affaire bi tradi la wala moderne ak tradi moderne ñëpp nga boole wala parce que kii. ay fan sam man xam naa ne bu moom dong la. grand théâtre day fees. kii depuis depuis Madison la tudd. waaw Madison ci la doon woy sama yaay ak ay anniversaire sa anniversaire ñëwaat na. waaw kii ay soirée dem sax yow mais da ngay dégg riir mi Ousmane Seck gi tey Ousmane Seck gi tey. moom ay fan sam rek feesal nañu grand théâtre moom Mandiaye aussi. kii ma wax la leen kii waa Géeja waaye ak waa Mbour yi ñoo ko a fees. bu eh, demoon moom dong grand théâtre fees ma Mbour. voilà man jaay kay xam naa ne déwén moom dina dina le 13 janvier. Thiès euh, euh, grand ah Thiès ñëppay ñëw. léegi lan moo nar a am li nga xam ni ah du lu ñuy gis euh, pentola wala lu ñuy gis leneen. am na lu bees. man sama problème mooy. daal mooy sa problème. kenn mënul wax lépp. am naa leneen lu ma dégg tamit jigéen ju baax ku ko dar. Ah, femme bu baax ñëwal waaw ah, c'est ah, important <laughs> femme bii nag yendalul fanaanul guddi ak bëccëg mi ngi ci grand théâtre bi pour mu réussir waaw sama xarit la kon kan moom dina ko wax li ngeen wax léegi waaw nga moom mi presque su ma engage grand théâtre li hmm. genn wàll gi moom mi moo tax ndeysaan ah, bugg koo ñemeloo parce que dafa am beneen public bu jeune boo xam ni mooy public bi door a jóg te moom xale la trop mhm. te ñooñu dafa war a ànd ak ñoom ci kàttanu yàlla màggandoo ak ñoom man am naa public boo xam ni euh, am na ay xale waaye moom mooy gën a bénéficier wu ci xale yi mhm. ndax seen moroom la ah, ay copain lañu théâtre bi nee naa ko nee naa ko nag sa baat bi na ko namm bu baax mhm. te na ma la waxoon sa concert ba bul am trac bul def dara bul jooy nit ñi soxla wuñu ay jooy de fi mu ne dafa gaaw a maa koy boole waali waali na pap maa ko dàq jooy bàyyi ko mu jooy waali ma ko daanee jooy yaa may dégg bilaay da lay woo téléphone euh, li ñu war a def yëpp kenn ko wax mais daal am nañu yéene ni mm. ku fa ñëw sa xol dina sedd. mooy mooy mooy mooy lan vendredi treize. li Youssou Ndour def ni barki démb ba war na leen tëggalaat ndax gars yi. fees ndax waaw yi waaw loolu. noo loolu Youssou Ndour moom nag dañoo bëgg na ci suba wax naa ko bi ma demee TFM. loolu ngeen bëgg a def yéen teg naa tey. incha allah voilà nee naa ma rek wisal ma rek. ñu def loolu ñu télé. am nañu yéene. incha allah te moom mi moo ciy bénéficié wu. ndax wax dëgg yàlla man yaakaar naa ne amatuma lu may prouver. dëgg la. Mhm. wallaahi. wax dëgg yàlla nag lu leer nag. xëy na nag xëy na damaa juum waaye moom moo am. juumuloo nit ñi xam ko. Mhm. xam ni moom mii dafa bokk nag ci famille boo xam ne am na problème ndax il faut ko mu séduire. il faut mu indi leneen. dëgg mhm. spectacle. thème parce que on a comme thème. les droits de l'homme ah super wayoon ko way naa ko. dëgg la. Mhm. sécurité. sécurité les de l'homme et la sécurité. nationale. Ah. Euh, entrée bi ñaata la. entrée bi mooy dix mille vingt mille. dix mille vingt mille. dix mille vingt mille. fan la ñuy di amee billet parce que. attention fan la ñuy euh, si da koo koo denc fi mu nekk nii. ndaw san mooy Aïda Deyman. waaw Deyman. Aïda Deyman. waaw Aïda Deyman. Mandiaye naana moom bëggul sax ku koy tudd. waaw. waaw ndax ndax ndax télé beeg yooyu xam nga. waaw waaye nee naa ko nag danaa la tudd ndax ku def lu rëy am lu rëy. ndeysaan. moom nag moo nekk ci mbir mi daal. di ko doxal di ci sonn ndax def na ko ak Kinelaam. Mm. mu réussir. Mm. bu daaw bi. Mm. moo ko def ak Omar Pen bii passé. moo ko organisé. troisième fois bi nag mu. désigner sama sama sama modeste personne ah loolu nag nee naa. ko nag waxul ñu ne fu béyee de. bii kay fi mu nekk ñëw waaye daf ko bloqué ci aéroport ba. ah nee na le 5. waaw bu soobee yàlla. da koy génne ci lay génne. a nekk ah. moo ko wax de. te moo génne billet yi tas ko moo ko wax de billet nag waaw. Ousmane boo yaay da. soo lee billet. sa ah, bien sûr. Ah, loolu mënu cee ñàkk. ah wax dëgg yàlla nag damay woo waa Mbour. Oh. Ah. <laughs> damay woo damay woo damay waa Mbour. ndax ñoom wax dëgg yàlla dañoo bëgg Mandiaye lool. waaw ndax eh, falaa nekkoon. waa Dakar wala Dakar. maa ngi ñëw. mooy maa ngi ñëw àdduna àdduna laay woo. waaw comprendre nga. boo jëlal kaas euh, euh, woo. te mu jigéen jox xamante ni ku baax la wax dëgg yàlla. Mm. muy Thiat Diop. waaw ma ca Mbour. waaw. ca 11 novembre. waaw di woo Nene Ndour. wool ñu ah. di woo di woo di woo Balde sama jigéen sama mm. xarit. way ah. naa ko ci single bu bees bi. na ñëw ñëw. Eh, mu doon ku ñàkk ñaanit moom. waaw li ma dig sax du ma ko wax. waaw mooy sa heure hmm. waa Dakar. waa Thiès. waa Kaolack waa Louga. waa waa louis eh, bi nga ma <laughs> parrain yi nag. non le treize ah góor ñi le treize moom. booy bi li may wax ak tey rek la yor. dëgg la ma ko rek la fi. marraine waaye nag waaye yu jigéen ñi ñoo dàq ko joxe nag. ma ma xam nga jigéen ñi nag. ah ñoo dàq ko joxe nag ñoo gën a tabe ku ñu pousse de. waaw waaw nga dëgg de gis nga baay bi di ko. caméra yi ñëwee. non maanaam maanaam. waa li ma li ma wax. li ma wax li ngay wax laata naa ngi leeragul de. waa léegi wuy ma ban télé moo koy couvrir la TFM. ah TFM a koy couvrir. moo yor exclusivité bi. ah, ah eh, mais waxtaan naa ak ayda ba nga xam ne aussi. waaw comme télé yëpp ñoo ñu bokk. waaw. artiste bu amee événement bu mel nii télé bu nekk war na cee mën a gis boppam. dëgg la dëgg la te li ñu benn nen la dañ koy mayonnaise ku na cap waaw waaye kii mi bool bi. TFM mais TFM sii suñu bàyyi. voilà dañu bëgg dañu bëgg waaw oui ma. oui ma waaw. Touba Gaz ñëwal ci Touba Gaz ñii nag euh, Ousmane ah. ñii ba Ngonal commencé ba léegi 2013. Mm. ba léegi lañ ñu gunge ba léegi. Touba Gaz waaw. ñoo ci Sénégal Touba Gaz. Mm. ëpp fi sécurité ñoo ëpp sécurité ci gaz. 9 kilobytes Touba da nga wax ñu certifié leen ISO. kii yëpp moom la ñu war a toggee Touba gaz képp kuy togg rek moom nga war a toggee. xanaa kon da ngeen may jox ci gaz yi ba yóbbu balaa may. non ñii dañoo bëgg sa bis bi madame madame madame ah, Tounkara looloo dàq waaw kay sa bis bi la meree ba meree la cinq millions la ñuy joxe buñ loolu moom dag ma koy defale rek loolu xam nga loolu laaj loolu doo ko def waay mais booy tàggool benn waay moom dafal ma koy defale loolu defale wu ma la ko nga ne buñ ma meree ba meree ma cinq millions boobu dañoo mer loolu moom loolu moom mënuñu ko moom. waaw mere leen ma. mere leen ma. jeex na. Eh, neex waa Touba Gaz dinaa leen woo. ci bés bi parce que bés bi moo toll noonu. waaw. waaye gis nga bés bi ñu ngi ci war a woo ñëpp macha allah mënuñu ko sax lim. Kumba Gawlo mooy sama marraine de l'événement. waaw. Eh, ma woo samay mbokk. d'abord waaw nga woote woot borom xaalis yi. borom xaalis naa leen woo. waaw waaye gis nga mbokk gi. waaw ñoo ëpp xaalis dañoo bokk ci askan wi. mu nekk askan woo xam ne lépp lépp. Papa Thione dina way si. war na cee boole ay mbokk mbokk yi Thione moom na xalam na folklore. yéen ñaar ngeen diw ay ay jullee la war. waaw yàpp yàpp yàkka. ewaay jullee la war. ndeysaan dégg nga lii. bii nag ngay tëj moom ndeysaan. lu waay di wuyoo da koy nuroo borom kër du fa. jullee la war jàpp dem jàkka lu waay di wuyoo dëkk yi nuroo borom kër du fa ëpp naa def taxaw dama ko bëggee. toogal toogal toogal. kii bu Paul Trezeguet dina def lu ñaaw. damay woo waa citoyen di monde. waaw waaw wooteel. damay woo madame sama sama sama sama xarit. kan la madame madame Waar. waaw. Aïda Sow. Kumba Magnifica. waaw woote Aramita Zeyna London. Kébé jëloon na woote. Tutu Diagne yàq yaay Baba Diagne. waaw Baxaw Diagne. woo Soso. mu Kébé à Paris. mu Kébé hmm. ah, woo ñi nekk fii. lëg yi jël eh, ma xaral. Papi <laughs> Pape Gueye borom xaalis bi laay woo. waaw déggoo ma de. ah tey d' accord moom ma ko dee ni ma xaalis la moom ma ko dee ni ma. woo Pape Gueye non dina ñëw. yaa ngi may dégg woo Pape ah, ñëw zone de captage. waaw. Eh, président woo tailleur yi nga xam ne xoolal tailleur yi ñu ma commencé defal.